ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu laa ilaha illallah Siteu bu Ngor Boy Diop doo ñaari xale yaa nee la Siteu bu Ngor bëre naag Caatu Rebeuss moom Siteu bu Ngor ñu na déet moom Siteu bu Ngor bëre naag Bébé Bismi bëre naag Naaru Sokaas bëre naag Alioune Sèye Junior moom Siteu bu Ngor waaye Boy Diop bëre naag Jeex Jàmb bëri naa Siteu bu anti bëri naa caatu ngéwal gi ñoom ñaar ñëpp fi fiy mujj si victoire lañ fi mujjee ñoom ñaar ñëpp biñ fiy mujj si victoire lañ fi jugee ndeysaan nee naa la Siteu bu Ngor déggagul muñal wala nga ne boo Diop déggagul muñal waaye Siteu bu Ngor dégg na benn yoon muñal dégg na benn yoon muñal.

wala ma arme da noen li gëj naa kaa gis depuis 31 décembre 31 décembre laa woon 31 décembre la woon ndeysaan xoolal Njaay lam def ah kenn ah, kenn du démb waaye tey kenn du Fallou Ndiaye ndeysaan doomu yaayu big mama Kumbelo Ngij moom si doomu Ngor waaye Boy Diop doomu yaayu Sa Thiès doomu yaayu Diop oh doomu yaayu Bib ñaari xale yaa ngi noonu waa déggal loolu waay kata kat teel guerre 92 nii gëj naa kaa gis guerre 92 waa xoolal lii waa tribune bi rafet na waay ay million waay xalil xoolal ma ñoom ñaar waaw waaw waaw waaw ñoom ñaar ak noonu ndeysaan waaw waaw Siteu bu Ngor Diop na leen arbi woo dañ leen di pilal sama dem na Tafa Gueye 2 Tafa Gueye 1 ak Baboy dañ leen pilaloon sama xel dem na foofu dem na si Bombardier yi gini ba ñu ko jox fii taxaw fee taxaw ñu pilal leen ndeysaan ku boot nga sa waaw boot nga sa cumukaay morom oh Tafa Gueye Balla Gaye 2 ñoom ñaar ku boot nga sa cumukaay morom boo boot na cumukaayu Siteu Ngor waaye Siteu bu Ngor boot na cumukaayu Boy Diop ndeysaan mais faala lamba oh! metti lambu nattu la ñoom ñaar ku ne boot nga morom ndeysaan waaw ne Siteu bu Ngor bi muy mujj yëmbal Alioune Sèye Junior moo ko daanu waaye Boy Diop bi muy mujj Yoff caatu ngewar gi la daanoon ndeysaan si naaru Sokaas Boy Diop si caatu ngewar gi ndeysaan Siteu bu Ngor Boy Diop ña ngay dem saako ya saako ya fekk ñi nga damantey baaraam ñoom ñaar ñi nga damante Diop door na jël na tànk ba Diop jël na ko door a ngi door Diop a ngi door Diop a ngi door Diop a ngi door Diop a ngi door Diop a ngi door Diop war na ko ndomba laa ilaaha illallah Boy Diop daan na ko Boy Diop daan na ko onze combats onze victoires onze combats onze victoires onze combats aux victoires laa ilaaha illallaah Boy Diop Boy Diop un combat une victoire laa ilaaha illallaah doomu yaay Sa Thiès doomu yaay Sa Thiès wax la wax kontaan wax la wax kontaan kontaan doomu yaay oxo xoolal ma gën nekk taaru xoolal ma Omar Talibe ndeysaan gën nekk noonu ndeysaan xoolal lii 11 combats 11 victoires 11 combats 11 victoires